jàpp waaw man de jàpp naa ne lu yomb la c'est que euh, mooy mooy li njëkk rek mooy décomplexé wu ba pare mm-hmm. damay dégg surtout nangoo ànd àndu nawle mm-hmm. c'est très important àndu nawle waaw c'est-à-dire que kenn ñenn ñi bañ a jàppe ñeneen ñi ay tubaab mm-hmm. ñeneen ñi bañ a jàppe ñeneen ñi ay puruñ su ma ko sañee wax euh, mooy lan mooy c'est-à-dire que fii ak xam nga ci fi ngay wax nii que ce soit Grande-Bretagne wala feneen ak feneen euh, am na système des équivalences mm-hmm. mooy su kii jógee ci benn système éducatif kii jóge fa fexe nañ ba trouver benn jonction mm-hmm. benn peut-être embouchure wala dara loo mm-hmm. xam ne foofu la ñuy dajewaat mu ne kon kii ki jàng tubaab niveau bi mu jàppee ne mooy bac ki jàng alxuraan ak arab niveau bii la équivalent su boobaa à partir de là ñu xool nu ñuy bokkewaat soit classe à travers benn langue de jonction bu ñuy parce que langue yi aussi c'est que euh, moyen d'expression la rek. Mm-hmm. Euh, pour man nag man li may defendre mooy euh, à la base mooy école primaire. Mm-hmm. mooy ñu fexe di jàngale ci wolof wala ci su ma nee wolof mooy fa bari fa ëpp yi pulaar. Mm-hmm. ñu leen di jàngal ci pulaar. fa ëppi séeréer ñu leen di jàngal ci séeréer. ndax lan ndax soo seetloo sa doom bi gën a ndaw boo ko yónnee woon boutique ba ne ko jëndal ma nangam nangam indil ma weccet bu ñëwee da lay wax lii ci des su ko borom boutique bi delloo lu ëpp sax danaan ko ëpp na. Mm-hmm. pourtant boo ko ko ñëwee ci âge boobu. Mm-hmm. tegal ko ko en mathématique. du ko xam. Mm-hmm. mooy kon y' problème te loolu day indi retard bu yàgg. Mm-hmm. moo tax léeg-léeg da ngay gis ne légence non pas un problème avec les mathématiques mais problème ah, avec la langue utilisée. Mm-hmm. pour les mathématiques. Mm-hmm. su dee ci yeneen alors que fi mu nii jamono ji ñu nekk c'est-à-dire que amatul xaar. ñu ngi ci mondialisation. mooy li soxna si doon wax léegi c'est-à-dire que amul ne euh, par exemple en enracinement ak ouverture la ñu wax. Serigne Touba dañ naan la euh, système tubaab la bañoon mais pour pourtant. li ci baax li ci baax da koo jël am na xasida gu mu tëdd tëgge merci waaw am na xasidaam goo xam ne merci la ko tëgge mm-hmm. ak yeneen ak yeneen bi soo seetloo jurbel bi bi muy bi mu koy bi muy teg euh, euh, jumaay jurbel 1918 mm-hmm. euh, foofu itam ngeen baal ma ma leeral ci saa gis nga dafa ñëw yaakaar naa 1912 mm-hmm. ba 18 soog a commencé projet juma lu mu doon tabax ci diggante bi xam naa peut-être mais li ma fi ma bëgg a waxee mooy bi muy def Jurbel 1918 jumaa ji booy seetlu dafa xool architecte tubaab. Mhm. mu jëli ko. bien parce que xam na ne. niveau de connaissance bi mu am. Mhm. ñii peut-être contemporain yi amaguñu ko. Mhm. mais mu fexe nag mettre euh, en place benn micro boo xam ne pour ñu dox jëm ci loolu. mooy sàkku ji xam-xam la ci la jëli Alaaji Mayoro Fall fa la ji jeex na fexe dajale fa ñoo xam ne ku ne fa nga nekkoon rek kàngam bi nga fa doonoon non seulement mu dajale leen ci loolu nga xam ne ñëpp nekk ay kàngam yoo xam ne ku ne rek mënoon ngaa wootee daanaka tarixa mm-hmm. mais mu mu inculquer leen aussi ay liggéey yoo xam ne par exemple day fekk ki nga xam ne li ñuy wax géer mm-hmm. mu koy def loo liggéeyub lawbe mm-hmm. ki nga xam ne tëgg la mu mu jiite loo ko géer ba ki nga xam ne ainsi nga xam ne ah, defaraat réorganiser ah. dindi complexe bi mm-hmm. ngir permettre nit ñi mm-hmm. ñu xam ne c'est-à-dire valeur yi mu leen bëgg a ñu ak ñu jël ko def ko seen bopp mm-hmm. ngir mën a progresser kon day waa soxla enracinement ak ouverture ci foo gis du question rek ne noo tubaab baaxul wala déedéet loo gis gis nga euh, foo gis am na lor am na njariñ donc yow c'est-à-dire su amee base boo xam ne foofu la ñu war a dimbalee suñuy xale mooy am base boo xam ne ñu mën a xàmmee li leen di gaañ ak li leen di lor. Mm. bu loolu amee rek mën nañoo jéggaani fu ne. parce que ñu ngi ci mondialisation les nouvelles technologies l' intelligence artificielle. Mm. ak yeneen ak yeneen. nga yaakaar dañ koy bàyyee tubaab yi rek suñ nee tubaab baaxul te toog ci plateau bi lépp ñu defaree ko ci biti. c' est à dire il faut ñu xam loolu aussi mooy jël la baax. Mm. Euh, sëñ Mame Moustapha bi ko tubaab bi fekkee ci jamonoy 40 yi. Eh, Touba di ko def interview loolu la leen wax. Mhm. neen dañuy jël civilisation européenne li ci baax ñu adapté ko suñu suñuy réalité. Ah je pense que loolu mooy modèle bi.